di la dalal di la bàyyi rek nga nuyu mbokk yi nga xamanteni ni jamono ji nu tollu ñi ngi nuy seetaan jaaree la ko ci li nga xamanteni modi di internet waaye ñu and ak ñi nga xamanteni ñoo di xombal point net di site internet bo xamanteni bu bees la eh, nek fi ci dëkk bi senegal nek biir Sénégal nek ci biir le monde entier rek mu melni fi mu ne àdduna wërngal képp ñi ngi lay déglu di la sëriñ ñu rek nga di nuyoo ci kër gi waaw maa leen di ziar yéen ñëpp. Mm-hmm. di leen nuyu nuyu bi nga xamante ni moo gën a màgg ci jullit. Mm-hmm. asalaamualeykum wa rahmatulah taala wa barakatuhu. Mm-hmm. gannaaw nag buñ sant yàlla jullit ci sangu-sang ji Seydina Mohamed. ñu ngi sant sunu wasila gannaaw buñ sante sunu ñaari waajur. Serigne Gallas mu Cheikh Abdul Karim Mbacké. ñu koy ziar. noonu la ñuy def na di ziar sunu xalifa général des mourides sëriñ Muntaxa di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wér. allahumma amin. di tamit euh, sunu xalifa général de Tidiane muy sëriñ seex Tidiane ñu koy ñaanal tamit yàlla sa borom sëriñ Mbaye Sy boobu. Mhm. ñu koy ñaanal bu baax yàlla suñu borom guddalu fanam bu baax a baax. Mhm. di leen ziar yow tamit ci dalal bi nga ñu dalal tey di ko rafetlu di ñaan ni. Mhm. yal yokk leen. ba ngeen yëg ko ndax lii dafa am solo ci fi nga xamante ni fi lan dëkk ak fi nga xamante ni tey jii fi lan nekk ngay liggéey liggéey bu rafet moo tax boo nu dalelee dinañ sawar tamit ànd ak yow ci liggéey bi ñu ngi ziar bépp xomb loi euh, di ziar képp ko xamante ni yaa ci diaspora bi ak fépp foo nekk rek te dëkk xombal ñu lay ziar ndax ñun xomb rek lan am jërëjëf ay ca sëriñ ñu ngi lay fay ñu nit bu baax rek di la dalal bu wér ay ca ñu bàyyi la rek Serigne nga wax nu kat mooy Serigne Nayel ak eh, eh, ban jamono nga tàmbali li nga xamante ni moo di ñaw eh, ba yàlla dogal tey nga tàbbi nekk jiite ñi nga xamante ni ñooy téer yu xombal waaw aja aju yi laaj nga am solo ndax bu ñu laajee kan mooy Serigne Nayel Serigne Nayel mooy doomi Mouhamadou Diop ak sono Waré Faye dëkk xombol magi xombal yaro fi jang fi metti ba yalla hmm. dogal tay ji ñu nek fi ci sunu njambar xamna nyubah ni sax njambar manam ñu bax ñi la rek motax ñu nek xombal ba yalla dogal ñu nek fi jang metti en 2003 ba yalla dogal tamit ñu am ci lim ci am ba suñ borom dogal tay ñi ñew xombal nek fi ba jité fi ab association hmm. ah, ñu di sant nak yalla bu baax ci palmarès bi nga xamanteni jaar fi te mm-hmm. amuñ ci lenn loo xamante ni ci suñu xelam bopp lu ñaaw la lu ñuy nettalil loolu mm-hmm. moom dañ ciy dellu sant yàlla bu wéré wéré wéré wéré jërëjëf ñam mm-hmm. ay ca sëriñ foofu rek la ñuy daal di tabbi ñu bëgg a xam eh, bi yàlla dogalee ngay nekk président association des tailleurs ndax loo loo xam ni la da ngeen koo voté ci seen biir wala da nga ñëw rek eh, xamal leen ni la yow daal da nga leen a bëgg a jiite nan la tëddee ba nga nekk eh, li nga xamante ni moo di président waaw loolu lu am solo la ndax bi ma nekkee xombol mm. xam nga li ma faral di wax ñëpp rek man moom dama nekk nit koo xamante ni euh, développement dafa maa ñor mm-hmm. nekk xombol di organiser benn défilé de mode mm-hmm. woowoon ay tailleur yoo xam ne dama leen dajale woon ne leen kat dama bëgg léegi ñu xool sunu liggéey nan lañ ko mën a pour mu jëm ci kanam ñu jëm ci kanam. Mhm. yàlla dogal ma dajale ñu ba commencé woon ut samay carte membre. Mhm. ni léegi dama koy jaay képp koo xamante ni bëgg na présenté wu ci def de mode bi ma bëgg a def xombal. ngeen ñëw ñu àndandoo ñu liggéey ngir suñu liggéey xombal ñu xam ni waa xombal maanaam mhm. desuñu gannaaw ci liggéey tëyër daal. ci loolu diggante boobu ñu nekk ci ci la commencé tëyër yi ni léegi danoo bëgg dajale fekk booba am na ñoo xam ne danoon doon def ay marché Euh, tailleur contre ay menuisier yooyu. Mhm. ci loolu nag relation boobu gars yi am ci lañ commencé ni pourquoi pas xombal mun ta am moom ñu dajaloo nekk benn mhm. ñun ñi nga xam ay tànk lan tey yor métier mi. Mhm. bi ñu ñëwee ko man tey ma ànd ci ak ñoom ci maanaam dajale nekk benn man ba jour bi may demee ci euh, vote yi. sentir wu ma ni man ma war naa mën naa jiite association bi. kon daal seen xalaat ñoom kon daal mën na jàpp yow yaa njëkk nekk président des tailleurs association des xom euh, euh, tailleurs xomal yow yaa njëkk a nekk président bi non non du ma wax loolu ndax am na ñu nekkoon ay président tailleur fii ah. waaye danoo dem ba ci mu am ay waa mu am ay rëkk-rëkk yoo xamante ni xaw nanoo bàyyi seen loxo mm-hmm. waaw ku mel ni maa ngi koy ziar au passage muy tonton Mbay Ndaw moom moo nekkoon président mm-hmm. voilà Mm-hmm. bi yàlla dogalee nag ñu toog ba xale yi nga xamante ni ay jeune talent lan mm-hmm. ñoom ñoo ni dañoo bëgg a jël relé bi téye téyeer yi ñi nga xamante ni tey jii euh, ay xale lan te man seen métier lool ñu ne mm-hmm. léegi dañuy loolu après ni ci diggante boobu nag ci lan commencé di dugg par atelier di waxtaan ni danoo am réunion boo xam ne danoo bëggoon a nekk benn loolu nag lan tàmbalee ba convoqué ma man ma ñëw toog gars yi léegi daal di waxtaan ci seen biir ni léegi danoo bëgg a def xanaa ab bureau boo xamante ni dañ koy fal pour ñu nekk ay tailleurs yoo xamante ni dañuy am njiit am bureau am maanaam lépp loo xamante ni activité activité booy def rek xam ne tailleur dañ ci feeñ seen feeñal seen bopp. Mm-hmm. léegi ñu ba ci àgg ñu ne léegi euh, président. Mm-hmm. bi ne président man yëkkatiwuma sama loxo yàlla moo ma tiim. Mm-hmm. am koo xamante ni moom daana gis may dox ci maanaam yu mel ni ay défilé de mode sonn ci lool mënuma yow nayal nayal sëriñ doo yëkkat sa loxo. lu teegee damaa ne mbay ndaw mi sama ginnaaw mbay moo ma kàjj ak tànkam ni ma eh yëkkatil ma jàppale la mhm. ma daal di sama loxo. aw ma mhm. kenn nag koo xamante ni nekk na deuxième ku ñu doon voté yooyu damaa yëkkati sama loxo rek. Mhm. Oh. ngeen ni dañu ko perdre ay cër mu mel ni rek invité bi dana ko perdre mais xam naa dina duggaat bu ko defee rek ñu daal di mën a yeggale eh, waxtaan bi Omar Gadiaga ah Omar Gadiaga ñu ngi lay sargal bu wér-wér nee na borom baax la <laughs> ayca ayca wax sëriñ rek eh, mu dellusiwaat bu ko defee ñu mën a yeggale li nga xam ni moo di waxtaan bi eh, noonu rek lañuy daal di jaare daal di koy sargal bu baax a baax daal di koy ziar ah nee naa la bu ñu tàmbalee rek li ñuy war a def mooy njëkk koo nuyu mu sëriñ Modou Kéemaan mu sëriñ Abdou Borom dër bi ñi kaa ziar bu wér a wér ñu ngi diwaanu Tuubaa Mbàkke eh, dër ba mi ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar njaboot bi soxna Mati ñi kaa bu wér di ziar ki nga xamante ni moo di madame Mbàkke ñi ngi kaa ziar di ziar njaboot gi yëpp waaye maa ngi ziar bu baax a baax Mamadou fay sama sank ba ñu ngi diwaanu Tuubaa ak toute la famille Faye maa ngi leen di sargal bu baax a baax Eh, di kontaan ci ñoom tey bég ci ñoom bu baax a baax ay teen ñu xaarandi ko rek xam naa invité bi dina del si waat mu mel ni sax waaw sëriñ waaw umpaañ maa ngi jégalu waaw waw réseau bi réseau bi léeg-léeg waaw réseau bi léeg-léeg waaw mhm. bi yàlla dogalee loolu am mhm. may ko sama loxo ñoom ñëpp ñu tàccu ñu daan may jiital jiital bu rafet nag mhm. waaw léegi nag euh, ñu nekk ci liggéey boobu daal noonu daal laa laa nekkee euh, xombool ba yàlla dogal association bi tegu sama loxo. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. wax nga dëgg noonu rek nga nekkee association bi daal di tàbbi sa loxo mais mën nañu xam diggante bi nga xamante ni sëriñ moom nga yor euh, association bi ak léegi ndax mën na xam yan projet nga jàpp ni rek doxal nga ko mu nekk projet yu wër yoo xamante ni amal na leen njariñ ñoom ba nu sentir ci seen bopp. waaw bi ma bi yàlla dogalee mu tegu sama loxo man li ma njëkk a xalaat. Mhm. mooy euh, yàlla dafa dogaloon tailleur yi. nekk mhm. ay pàcc pàcc. maanaam nekkoon na fi ne ay ñetti association yu nekkoon ci biir tailleur yi. Mhm. léegi bi yàlla dogalee nag ñu toog ñu falma ci ndimbalu Lamine Gueye moom dan koo seeti woon pour solliciter ko pour affaire ay machine ñu ngi koy nuy bu wér. le deuxième action waaw bi ñu yàlla dogal. moom mu kat association yi muy dégg xombal ci tëyër dafa bari. est-ce que mënuñoo dellu ñun waxta pour ñu nekk benn. bi yàlla dogalee ñu ñëw tamit ñu ci doon dox. maa ngi ciy remercier bu baax Assane Babou. mi nga xamante ni moom moom sama porte parole. ak Thierno Conté. mi ngi koy nuyu euh, Assane. waaw ñu ci dox dox bu yaatu boo xamante ni pour tëyër yëpp nekk benn. Euh, mm-hmm. ñuy ziar tamit Marie Sam mi nga xam ne tamit dafa jiitoon benn mouvement boo xam ne ay tailleur la ak jigéen ñi nga xam ne dañoo am ay liggéey maanaam moom da ci doon dox buy am solo mari Sam mm-hmm. waaw ci la yàlla dogale ñoom tamit ñu dem waxtaan ak ñoom pour ñu nekk benn mm-hmm. ci noonu ci lan tàmbalee tamit dox ak beneen mouvement boo xam ne dafa jugoon ñoom newun woon sax association mais dañ doon def ni sax ku xewle ñoom ci lool la tënku woon seen biir ku xewle ñu dem jàppale taxawu la. naanaam ñu dem tamit ñu. Mhm. waaw ndimbal la woon waaw. bi yàlla dogalee ñu dem waxtaan ak ñoom ñun ñëpp ñu nekkaat benn. ma ne pourquoi mhm. pas lii ñu def nii mu nekk benn mënuma créer benn genre maanaam ab daje boo xamante ni téyeer yëpp laay woon ñëw toog. ma mhm. waxtaan ak ñoom. nekk benn jàppandoo nga xam ne téyeer kenn mun leen a xàjjale benn lan war a doon. ma organiser benn fête boo xamante maa ngi ko defee école 3. ànd ko maanaam téeri xombal yëpp Mm-hmm. macha allah jour boobu laa gën a am ni maanaam lu ma neex sama àdduna ndax bi mu ñëwee woo naa leen mais wuy si nan wuy si boo xamante ni toog nan fa kafree mm-hmm. ba ñëpp nekkaat benn muy projet bi nga xamante ni projet boobu mooy projet bi ëpp solo ci man mm-hmm. ndax di nga nekk président ñii féete fee ñii féete fii ñii féete fale mais ñun jour boobu téer yëpp a ñëw daje école trois ñu ko waxtaan kafree maanaam def fa maanaam loo xamante ni yaakaar naa ni képp kuy corps de yaakaar naa c'est la première fois ñun ñu masa am maanaam jour bu mel noonu bu bu bu réussir noonu. téere dong ñoo ko mas a am. Mm-hmm. ba yàlla dogalee loolu tamit ñu ni pourquoi pas ñun téere yi mënuñuy dimbali teg mm-hmm. suñu biir. ñu ni léegi mm-hmm. nan la ñuy def am na ay téere yoo xamante ni dañ daa toog bàyyi ba dimanche wala samedi ñu ñëw abba ay machine di toog di ñaw. ñu abaleen ay machine ma toog ba ci yàgg ñu xalaat ni war na noo mën a am loo xamante ni dinañ ko jënd ay machine Hmm. bu sunu biir yàlla dogal ñu hmm. toog ma xalaatal leen ni léegi nañ leen xool benn artiste jour boobu maa ngi koy hmm. fàttaliku Thierno Konté laa ci njëkk a wax na ma ne ko Thierno damaa bëggoon daal ñu xool benn artiste bu yem boo xam dinañ ko indi bu ñu tëggalee lu ñu ci am ñu def lépp ay machine dimbalee ko suñu téer yi nga xamante ñoo fi nekk amuñu ay machine man daanaka social boobu laa doon doxal ci tayër ba yàlla dogal nag euh, xam naa ay gi xaw naa kii ndax feebar bi dugg ci diggante beeg yooyu waaye nag yéen a ci amoon moom nekkoon na loo ah. xamante ni lu kawe suñu jot la suñu diggante ah. mais mais xam nga xam nga journée ba journée bi da nga ni moo nekk li na gën a neex ci sa àdduna ndax daje ba ngeen cee daje ak yooyu parce que ba maanaam daal téer yëpp dikk mais est-ce que journée journée ba am na benn revenu boo xamante ni jóge na ca ñëw ca téer yi wala wala gaje ngeen ci dara loo xamante ni ñoom ci seen bopp après ba bis ba passé ñoom sentir nañ ci seen bopp. waaw gaaw gagné nañ ci lu bari aji bari bari ci gagné ndax la ci gagné moy amna ko teer bo xamanteni dama da dama da rombonté ak mom hmm. musuma xam musuma ko xam duma ko nuyu duma nuyu hmm. mais ci jour bobu lan tambalé mu may nuyu dima jox loxo suma rombé sargal ma man tay ma sargal ko ba ci teer yi ñu bari bari lolu suñu borom def na ko ci lañ gagné ci jour bobu rek moy ci walum kom xam nga nak xam nga ay teer ngeen bi yàlla dogal nekk président bi eh, lu mel noonu nga taxawal ko ñàkkul ni bis ba xañ na du da ngeen a ñëw lekk rek daal di naan waxtaan kafre dem den seen yoon. xam ne ñàkkul ñu leen ah. wuyu si ba ñoo jàpp ca bis ba wala sax ay ndimbal yoo xamante ni xam ne xaar ngeen ko ca ba jot ko ngeen jógee ca loola lan lan ca taxawal ca ndimbal yooyu loo xamante ni mën nga jàpp ni daal eh, ñoom gis nañ ca seen bopp. waaw bi ñu jógee foofu yàlla suñu borom dimbal nañu am nañ ci maanaam benn fond mm-hmm. de caisse boo xamante ni. wax hmm. dëgg yàlla jour boobu am hmm. muy comme moo xamante ni euh, dafa jóge ci bisba ba muy ay nit ñoo xamante ni danoo ñëwoon maanaam hmm. dalal suñu bi leen invité muy ay borom daraja ñu ñëw jàpp ci maanaam invitation bi leen invité jour boobu ba yàlla dogal tamit buñ ca képp koo xamante ni kilifa nga nekk maanaam ci ci baat bi ma ko mën a wax nekk paa di nas puso xombal yëkkati nan maanaam benn maanaam suukar su bari ñëw jox la ko

revenir bo hmm. moom am nañ ko ci. Hmm. waaw ci koom ma amoon loo xamante ni wax dëgg yàlla duggoon na ci kees gi te génne woon nañ ko tamit yenn yi pour dimbalee ko ñi nga xamante ni ay ay néew doole la nekk ay tey waaw. Hmm. ayca xam nga eh, Serigne eh, bu ñu jógee ci li nga xamante ni moo di association bi eh, dañu gis Serigne Ndiaye benn jamono muy ànd ak ñi nga xamante xañ na ñooy tagg Mouhamed ñu di leen wooye ñi nga xamante ni ah li ci ëpp ñu ngi dem ci këri diine yi wala sax ci tant yi ñu gis sëriñ ci tant yi ñu dem ba benn jamono ñu gis beneen sëriñ jaay bu bu bees lan ma waral changement boobu sëriñ waaw aji loolu loolu jàpp ma ni changement la jàpp ma ko mm-hmm. parce que mosuma jug ci ci ci xaside yi te ñaanuma yàlla suñu borom jug ci mm-hmm. waaye sëriñ dafa am beneen mbubb boo xam da koo da koo sol mhm. am beneen mbubb boo xam dafa nekkaat ci kawam mhm. muy ma jiite mbooloo moo xamante ni mhm. kenn ku ne da ngay dem sa bëgg-bëgg te man mënuma nangu loolu ñu man nangu ni man maay président des tailleurs yàlla dogal ci seen biir xalaat ak seen biir wax ñu ni nangam lañ bëgg ci ànd man ma koy daw ngir dama nekk ab jànkat xasida nit ki nag danoo taamu ci nit bu fekkee yàlla dafa dogal nga nekk ci mbooloo Mhm. da nga leen di fekk si ci liñ bëgg. Mhm. ngir ëllëg yow boo amee loo bëgg. Mhm. nga woo leen nga bëgg ngir ñoom ñëpp ñu fekk sa ci. loolu moo indi maanaam ñaari casquette yi nga xamante ni moom nga tudd léegi. muy dan maa gis si tànt yi toog ba ci ak gisaat ma fereen ba ci jamono jooju maa ngi ci tànt yi ndax fu xaadim ndaw maa ngi koy muy au passage sama sama sama sama jëwriñ. sëñ Xaadim Sëriñ Moxtaar waaw mi nga xamante ni mooy jëwriñu euh, xombal ñëpp. ñu ngi leen di ñaanal mhm. yàlla suñu borom defal leen jàmm ak tawféex mhm. ah, yàlla mhm. suñu borom dogal lool nag ci maanaam sama jëm ngir man jiite association ay tailleur loolu moo indi woon casquette boobu ma solon ko ngir accompagner leen ngir ëllëg su fekkee man am na leen lu ma bëgg ñoom ñu ànd ak man ci accompagner boobu ma bëggoon ñu def ko loolu moo indi ñaari casquette yi ajaaji loolu moo ko indi waaye eh, eh, ñu bëgg xam eh, rek ànd boobu tamit nga xam ne àndoon ngeen ko ak waa Mbour production balay boobu rek eh, ñu nuyu bu baax a baax sa soxna ñi ngi ko seen ci suuf ak mm. eh, Baye Zal waaw ah, noonu la de Baye Zal. ñi leen sargal ñoom xamante ni ñi ngi ànd ak ñun jamono ji nu toll. Eh, ci mm-hmm. sunu teraanga ñi ngi leen di sargal bu baax a baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm rek di ci ñoom Serigne ñu gis ba benn jamono ñu gis Serigne Nayel ak ñi nga xamante ni ñoo di tailleur yi. am ku nu fekki wala sax xañ na kooku fekk si leen ngeen ànd muy ki nga xamante ni moo di Moustapha Mboup Mboup production euh, moom nga xamante ni moo taxawal euh, label boobu nga xamante ni mi ngi wuyoo ci turu production euh, muy muy ki nga xamante ni moo di Moustapha Mboup ñu jekki ba benn jamono ñu gis ngeen ànd ànd ba pare daal di songu mbër mu rëy bëgg koo in bëggoon koo indi fii nga xamante ni moo di xombal est-ce que mën na noo xam ànd ba nan la demee. ba xam yéen yéen a fekki wala sax mustapha moom moo leen fekk si. waaw Umpaañ bala maa tontu ci kàddu googu <laughs> danga may may ma ziar sama soxna si maam Diarra Gueye. Mm-hmm. waaw muy maam Diarra Gueye nekk koo xamante ni ci man daanaka sama genn wàll. Mm-hmm. lu ma dugg ne daf ma ci accompagner di ma ci jàppale moom ay mbokkam Baye Zal Gueye maa ngi koy ziar ak mbay mi nga xam mooy seen kilifa ñoom ñëpp muy mbay Gueye. ñoom ma sha allah dañ ma taxaw taxaway bo xamanteni euh xam ni wéetuma mm-hmm. kon man ma ngi leen di ñaanal di ñaanal sama ya Penda fal bu baaxa baax mm-hmm. yalla suñu borom defal ko tawféex may ko gudd fan ak mm-hmm. wër gi yaram ak waaw aji ci mbuk mbub prediction bobu ngay wax euh, yalla dafa dogal ñun biñ toogee xalaat ni artiste lan wara indi xombal man ma ñëk ni walé sek indi ma tegoon ko ci ay raison nga ko ma teg ko ci ay raison ay raison hmm. ndax John Seck yàlla na ko yàlla yërëm maa koy ñaana suñu borom xare ko àjjana. moom dafa nekk dafa nekk mbokk ci ñun. Hmm. ay rakam muy Ousmane sekk ñoom ñëpp dandaa ñëw ci kër gi suñu kër. nga dëgg ma ni léegi buntu la pour ñun ñu dem foofu waxtaan ak Papa Thion. Hmm. ngir yàlla suñu borom dogal euh, li ñu bëgg mu may ñu ko ndax li ci sentiroon rek mooy revenir yi nga xamante ni moo ci doon am. ñu mën koo jënd ko mhm. ay machine dimbale suñu mbokki tailleur yi loolu rek moo taxoon ñu ne léegi waale moom bu ñëwoon xombal lu mu fi tëgg tëgg xam naa ne moom dinañ am lu mu ci for bu doon benn benn benn machine sax dinañ ko ci am pour dimbale ko ay tailleur loolu rek moo nekkoon suñu objectif mhm. ñu ñëw ñu toog Papa Thion daal di waxtaan ak ñun ni kat waale bu ñëw xombal moom il faut ngeen am 10 million jour boobu ma ne ko incha allah dinañ ko lijjanti 10 millions yi pour ngeen ko xombal te jour boobu. 200 millions di nga baal ma si jamono boobu Papa Thion moo ñëw fii wala yéen yéen a déplacé wu dem Dakar ci Papa Thion. waaw ñun ñoo déplacé wu dem Dakar parce que man maa ko woo téléphone. Mm-hmm. maa ko woo téléphone waxtaan ak moom. mu ne ma naa bu tam xaritee ba ca suba ga naa ñëw Dakar fekk si ko këram. Mm-hmm. ñu laa fi jógee day dem Dakar man ak mm, euh, quelques membres bureau ñu ànd dem Dakar. Mm-hmm. biñ demee ñu waxtaan ak moom mu wax ñu loolu ni waale di ni bu dee day ñëw moom di def jóge Dakar pour génn ci yeneen sous région yi. Mhm. il faut moom dix millions rek moo ko mën a déplacer. dix millions. waaw ma ne ko léegi amul problème dix millions yooyu incha allah dinañ ko kii ba papa John dina mbalak sax ndeysaan naan xombal gu wow googu na ngeen mën a amee amee dix millions ma ne ko ñun moom dinañ ko dinañ ko lijjanti. Mhm. bi ñu ñëwee dimbali ñu. Mhm. sagam ñun ab groupe ñu rendre compte ñi nga xamante ne ñoo leen jiite. mooy groupe bi ñu waxtaan ak ñoom. ñoom ñu ni kat loolu dafa seer. man ci sama fit may leen loolu seeru. bàyyi mhm. leen ma ñu xool stratégie. Mhm. ma Assane Babou daan ne ma te ngaa woo Moustapha Mbuub ndax am na benn bis moom xam nga Assane dafa nekkoon nga xamante ne Ngànjool day collecté mhm. ay ay mbalit ak yooyu muy dugg ci kër yi di fayeku benn jour dafa dugg kër ñoom Moustapha Mbuub fekk leen ngeen di réunion ñoom ñuy réunion mu for ci aw weewu bay dégg ni ñoom Moustapha Mbuub doona waxoon ni dañuy indi Wally Seck xombal ci la ma Assane waxee ni ma naa leen ñuy wax Wally Seck ma yëkkat sama téléphone woo Moustapha Mbuub Moustapha hmm. Mboum ndeysaan maa koy ñaanal moom tamit frère am yooyu génn àdduna yal na leen yàlla yërëm. ñu euh, koy jaale di ko masaw bu hmm. baax a baax a baax. Hmm. ci laa ci laa ko woowee ndeysaan mu ne ma léegi na ñëw dakaar bu ñëwee Dakar léegi ñu toog waxtaan ak moom ñu dem Dakar. waxtaan yàlla dogal ñu déggoo ci ay kàddu. mu nekk comme coproduction. boo xamante ni mu production la ak les terres de Khombole. yàlla dogalee loolu tamit mu ne léegi da ngay indi. Euh, benn somme ma teg benn somme ñu dem yóbbu ko waale avance. Ah. foofu rek lañ commencé ànd ak daal lañ ko tàmbalee incha allah. Mhm. ayca xam naa bu mu jokkoo bi du yàgg dara dinañ ko tijji ayca yeggaleel rek sëriñ. waaw ci noonu daal lañ demee Dakar waxtaan ak moom yàlla dogal moom tamit mu nekk oyof mi Moustapha Mboub. Mhm. Euh, tax taxawaay taxawaay bi man sëkk mhm. vraiment. loolu hmm. mom taxaw nañ ci tailleur yi ak suñu activité ndax suñu ñew li ëpp ah. li ëpp mo lélé sa mo moo ne jox pass hmm. ah li ëpp li mëna jox pass bu ñewé mo nuy jox lek naan lepp loolu mom hmm. ci ñaan yalla suñu borom ñop ci ay xéewal ci barké yonent bi vraiment aha ay ca ngeen dem fekki ko yalla dogal ngeen waxtaan euh, ba juboo and pour bëgg indi ki nga xamanteni modi wali di sek fi ci dëkk bi mais est ce que mën nañ xam ban ban ban somme ngeen départ ku ci nekk ci yéen ban som la joxe pour ngeen mën a jox ki nga xamante ni moo di Wally sek Seck avance boobu pour mu d'accord pour ñëw tëgg fii xomba waa xam nga ci ci ci ci ci loolu mm-hmm. li ëpp Moustapha Mboub moo ci moo ci doon communiquer ak benn xaritam mm-hmm. ndax xaritam boobu moo Wally presque ñoom ay doomu ndey lan moom lu nekk la ko daa defal ndeysaan <coughs> ci foofu condition yooyu la Moustapha Mboub doon waxtaan ak kooku mm-hmm. pour appuyer wu pour ñu jël avance bi nga xamante ni donte Euh, mhm. dëgër na dëgërul ñu jox ko ndax mhm. ñun 3 millions la dañ ko jox comme avance première première xana avance bi ñu ko jëkk a jox dañ koo jox xanaa 2 mhm. millions après ñu toog defe naa deux semaines ñu joxaat ko benn 1 million bi muy 3 millions mais Moustapha Mboup daana jëflante waal loo xamante ni moom moo daan dox suñu diggante ak moom eh, eh, fi fi nu bëgg a xam rek Serigne mooy mooy maanaam yéen yéen tailleur yi ak ñoom ku ci nekk ñaata la joxe ci somme pour mën a génne avance boobu. ndax émission ngeen def ku day dindi joxe bu ko defee avance bi mën a dem. Mhm. waaw kenn ku ne un million cinq cent lañ ci joxe woon. muy mm. man damaa indi un million cinq cent. waaye Moustapha moom Moustapha joxe un million cinq cent. Mhm. yeneen yi nag mooy Moustapha Mbour dafa féete woon Dakar. Mhm. léeg-léeg Wally danaa toog am am am am soxla dara woo mu Mbour Moustapha Mbour envoyé ko après bu ñëwee xombal li def réunion. ñu xool nan lan mën a loolu. pour rembourser li nga xamante ni moo nu ko yóbbaaleel ci waale ji la doon def noonu la doon defee mm. noonu la doon doxee vraiment mm. ba yàlla dogal ci li xew lépp xew ci ñu mm. ñaan yàlla suñu borom tamit moom au passage waali ñu koy jaale Papa Thion di ko ñaanal sëriñam boobu mu jóge fi foofu rek suñuy teg baaraam ndax xam nga mm-hmm. jamono jooju bari woon na bari woon na coow coow yoo xamante ni sëriñ il faut ñu teg ci loxo ndax nag eh, eh, da ngeen àndoon mais mais ci biir ànd ba amoon na coow yoo xamante ni daanañ ko ci dégg ñee ñu ni tailleur yi nee nañ ñoo fi indi waali ñi ñëw ni eh, nee nañ Moustapha moo fi indi nan la demee woon jafe-jafe yooyu nga xamante ni doon ngeen ko dund yéen ak waa mu production. waaw man du ma du ma ne jafe-jafe la sax parce que événement benn réyee noonu moo ñu tol noonu. Mm-hmm. événement bi dem ba ëpp loxo ñi nga xamante ni sax ñun ñoo ko ñoo ñoo ci bokk ñuy tailleur yi. Mm-hmm. te te loolu tamit communication bu ne da ko daa dégg mais man ci ndimbali yàlla suñu borom. Mm. daanaa dégg ay communication mais su ma masaan a dégg. Mm-hmm. dama daa woo Moustapha ni ko Moustapha ka dégg naa nangam ak nangam moom tamit mu xelal ma ci. Mm-hmm. ba benn bis yi ñoom ci boppam am maanaam ay affiche yoo xam ne dafa génnoon. Mm-hmm. gisuñ seen bopp ci affiche yi. ñu commencé maa woo ba jour boobu man dama mujjoon déclaré ci ñi nga xamante ñoom laa koy ni man maa fa dugaloon sama xaalis maa fa dugaloon maanaam un million yi. man mais damay woo Moustapha bu mu retiré ma sama un million man Mm-hmm. parce que yooyu bu ñu demee ba xalaataat ni mbir mi. Mm-hmm. man sagam man maa leen jiitu man maa leen war di comprendre ci lu bëri. Mm-hmm. ci lañ commencé waxtaan woo Moussa Fadil ni ko yi nga xamante da nga ko def muy yi nga xam ne léeg-léeg ay vidéo yi génn nag duñ ci gis tailleur yi wala lu tul tailleur moom dañ ci daa am lu nu naqari trop en vrai dire dañ ci daa am lu naqari bu ñëwee xombal jakartamaan yi wala ñeneen ñi nga xamante ñoo fi nekk di ay coordonnées ci dañ naan yéen indiwu leen fi waaye dañ leen a yóbbaale dong leen wax loolu bu ko gars yi masaana dégg Mm-hmm. vraiment da leen daal soppe lool loolu nag moo indi woon polémique bi doon am suñu diggante mais lépp mu joon nañ ko arrangé parce que xam nañ ni euh, Moustapha Mboub c'est un frère euh, mm-hmm. lim lim lim ñu doon gëmloo moom la doon doxal muy lan muy dama man bu doon benn dërëm la dama leen ko jox téere yi pour machine yi ngeen bëgg mm-hmm. lool lan mu joon di kii ba yàlla dogal ñu commencé woon ngeen def un million cinq cent ñoom ñu def un million cinq cent est-ce que mën nañ jàpp ni ba léegi contrat baa nga fa ba nga xamante ni tey jii euh, bu dara desut woon lu dul waali euh, euh, démarrer liggéeyam rek bis boobu mën na mën na am si ci xombal est-ce que contrat ba ba léegi ma ngay dox wala déet. waaw contrat ba léegi mi ngi dox parce que bi yàlla dogalee moom sëriñam boobu wàcc liggéey. Mm-hmm. dafa dafa maanaam ñoom Moustapha Mboub ñu féete Dakar. Mm-hmm. ñoom dox nañ ci dox bu am solo ngir maanaam dem nañ fa. waxtaan nañu mm. ak moom maanaam ménagère bi di njaga maa ngi koy nuyu njaga Samb au euh, passage. Mm. waxtaan na ak moom ban xamal ko ni ko léegi moom arrêté na bépp activité boo xamante ni. yu euh, mu mm. yu mu signé woon contrat. Mm-hmm. ba ba ba yàlla dogal euh, sëriñam bi xaw a kii ak yooyu ñu mën a reprendre reprendre activité am. Mm-hmm. ci mu ci jamono jooju nag ñun ñu ngi doon tànnal beneen date ndax tànn nañ fi ñaari date. Mm-hmm. après tànn nañ fi le le dix huit. ñun léegi dañuy xool le dix huit bi wala ñu xool le onze bi. ci mhm. diggante boobu nag ñuy tànnee date yi fekk boobu daf ñu proposé ñaari date ba yi jox information yi. Mhm. léegi ci jour boobu nag ci la yàlla dogalee feebaru coronavirus daal di dugg. daal di feeñ. waaw mhm. ba yàlla dogal moom tamit mu ñu annulé bépp activité. ñu ni léegi ba nouvel ordre. sagam ba léegi nii feebar baa ngi fi. xam naa ne dañuy xaar ba nouvel ordre rek ñu tànn bis boo xamante ni dañ koy jagleel xombol ak li wër xombol ak région de Thiès ak bépp maanaam région boo xamante ni yaa ngi biir Sénégal maanaam adduna bi yëpp daal waaye waaye daal kon daal mën nañu jàpp ni avance téer yi yi ñu dugaloon ci li nga xamante ni moo di waajal Wally Seck fii ci biir dëkk bi ba léegi ma nga fa te ba léegi contrat bi mi ngi dox ba léegi ma nga fa ba léegi nii may wax ak yow euh, contrat bi mi mi ngi en cours mhm. muy avance téer muy lépp loo xamante dugal nañ ko ca ma nga fa mhm. tëdd mhm. ni xaar rek yàlla suñu borom su maanaam feebar bi fi dugg suñu borom jëlee ko fee jàmm Euh, mm-hmm. te muccal ci bépp doomu julit ak ñi nga xamante ni yàlla suñu borom dogal na tamit ñu wuy ji ci yal na leen yàlla sa borom di ñaanal képp koo xam dalagu la yàlla moom la masa dal ba yàlla jógale ko fi jële foofu ci jàmm te am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax mm-hmm. ay ci alaama amin di dellu rek di nuyuwaat mbokk yi bu baax dellu di ziar mbokk yi dellu di am mbégte ci ànd ki ngeen ànd ak ñun eh, ci sunu teranga waaye ànd tamit ak li nga xamante ni moo di page xombal point net eh, soxna Adja ci kàddu gi ñu ngi leen di sargal bu baax a baax bu wér di kontaan ci yéen mbokk yi <laughs> di kontaan bu baax a baax invité bi tey Serigne na la nekk président association des tailleurs yu xombal ñi ngi sargal tailleur yëpp nag ah ñi ngi sargal tailleur yëpp. xam nga téer moom ah nee naa la eh, mooy lépp sax ah nee naa la ah. ki la ki la ki la ki lay ñawal ba nga mën a tiitaru mën mën a mën a mën a sagu ah kooku moom mooy lépp eh, di xamle rek ni daal dinañu tijji li nga xamante ni moo di buumu jokko bi mbokk yi mën nañ daal di dugg ci 77 043 25 76 77 043 25. 76 bu ko defee ngeen participer ci li nga xamante ni moo di waxtaan wi dox ci diggante soxna Adja euh, ci biir sunu teraanga waaye dox ànd si tamit ak nga xamante ni moo di Serigne Nayel nekk président association des tailleurs yu xombal ñu ngi nuyu bu baax a baax Badou Ndiaye ñu ngi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax euh, di kontaan ci moom di béggee képp koo xamante ni rek. Eh, yaa ngi ànd ak ñun waaye di nuyu ki nga xamante ni mooy di frère eh, di monsieur Jibi Ndiaye ñu ngi kaa sargal bu wér eh, di sargal famille yëpp di leen déwénati ci weer wu teddu yi nga xamante ni moom la ñu toll ñu ngi leen ci sargal bu wér a wér waaye di sargal tamit Ameth Kanté depuis Amérique. ñi ngi kaa sargal bu wér di ànd ak moom di ziar tamit doomu xombal bu baax boobu Mouhamed Ali Ndiaye ñi ngi kaa sargal di sargal képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo fii ci diwaanu ngay te dina bàyyi xel ñi ngi leen di sargal bu baax a baax di leen wax ni rek daal dina ni tijji bu mu jokko bi ci 77 043 25 76 bu ko defee mën ngeen ci jaar daal di participer ci li nga xamante ni moo di waxtaan wi dox eh, ci sunu diggante ak Serigne Nayel ay ca ñu bàyyi ko tuuti rek Serigne ñu déglu ko tuuti eh, bu Junior Eh, eh, bu njaasaan rek eh, rek ñu bàyyi la nga ziar ci ki nga ci bëgg a ziar bu ko defee ñu déglu ko tuuti daal dellusiwaat ci waxtaan wi. waaw aj maa ngi lay ziar bu baax yow tamit yow laay njëkk a ziar waaye nag njëkk la ziar moom mooy ziar naa sama soxna su baax si maam Diarra Gueye di ñaanal yàlla suñu borom may fan ak wér gëram mm-hmm. moom moom moom moom mention honorable laa koy wax. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla la fan ci barke Cheikhul Khadim. noonu laay def di ziar. waaw sama jabar yi nekk ci kër gi ñoom ñëpp ñoom may Mbàkke maam mm-hmm. Jaara Seck mm-hmm. di ziar soxna Ndey Lo ak euh, maam Fatou maam Fatou Ñang mm-hmm. maam euh, Fatou ñub ak Omar xamante ni waaw waaw madame <laughs> Séri Thiat maa koy ziar bu baax di ziar bu baax Omar mi nga xamante sama rakk la muy Omar Nayel ak Omar mu mag ñëpp rek maa ngi leen jox seen wàccuwaay baax a baax a baax baax di ziar képp koo xamante ni tëyër nga rek sëriñ mi ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw ah, di hmm. ziar nag képp koo xamante ni rek yaa ngi yeewoo biir xombal ñu ngi lay jox sa wàccuwaay waaw hmm. moom ma ngi dégg bu baax a baax a baax hmm. kon ñu déglu ko tuuti rek bu junior bu njaasaan rek bu ko defee bu desee daal di ànd ak yow ci waxtaan bi ay yëkkati na di nara julli nara julli yàlla na ko di Mustafa. Pekulli ama bir olacak. tey ma jox la ko ma jox la ko ay ca ko bu baax a baax ah, ñu ko seen eh, eh, eh, ci kaw ñu koy ziar di ko bàyyi xel bàyyi Sall Guèye moom tamit ñu koy sargal bu baax a baax ñu ngi lay rek bonne continuation Serigne ah di la jaajëfal bàyyi Sall ak ki nga xamante ni moo di Omar ga ñu ngi leen di sargal ñoom tamit ñu ngi ak ñun ay ca ñu motax boy wutum xarit nanga tan yon ne Mustafa rek ma la xarit nabi ya ko kamal faxar bu tuuri weer yëpp yaa kawe képp kuy jullit te tiitalu yónneen ci sa xol yow da gay xaru yow soxna man om mi njaay su may tàgg yónneen sama xol faw mu dem ci yow ami jilaani yow su may wayaatee sama fu mu doon faw ma tudd la ca juddum ga lay njëkke taal ndax juddum ga doy na kéemaate jumas la annoncé juddum wax ko yaaya ay tey ñu ngi koy sargal bu baax a baax baara na yàlla ah, depuis si ngi koy sargal bu wér ah te naa la moom day ànd ngi koy sargal di rek les deux madame Nayel ñu leen sargal di kontaan ci bu baax a baax ay jëm keroog Mariama teew na asiyey teew Safa yaayu Abdurahman keroog la bindu yi fecci garab yi di toog rab yi fecc yuuxu ñëpp kontaan Abu Lahab mi fi gën bon keroog def na mbaa daa goreel suway ba jàmba kontaan ay ci yaa ko dégg noonu rek ah euh, bu siñoor rek lan àndaloon euh, daal di ci sargal mbokk yi waaye bëggale leen ko ndax nag nee naa la weer wu nu nekk moom day weer wu tedd eh, muy weer woo xamante ni nee naa la suñu borom ay xéewal rek la ci def ak ay njëggal ba tax na nee naa la buñ ci tolloo eh, dañ koy màggal di ko sargal tey nag ñu ànd ak moom invité bi nekk Serigne Nayel eh, jiite association des tailleurs yu xombol rek la ñu àndal tey ci suñu teranga waaye ànd ak yéen ci site xombol point net rek ñu ànd ak moom di wax mbokk yi ñu abonné ci li nga xamante ni moo di page bi. ci Facebook waaye abonné tamit ci compte YouTube bi bu ko defee ngeen di mën di programme yi nga xamante ni ñu ngi ànd ak yéen ndax yaakaar naa ni eh, daal seen alal la yéen a ko moom ba tax na eh, nee naa la buuxante leen ci njëkkante leen ci nit ki buy dem ca la mu moom du xaar kenn wala mu xaar ku ko jox ndigal wala sax ku ko woow ay ca sëriñ day daal di tàbbi rek li nga xamante ni moo di waxtaan wi daal di koy yeggal léegi ñi ngi tàmbalee ci li nga xamante ni moo di jiite gi nga jiite association téer yi jóge ca daal di tabbi tamit eh, ci li nga xamante ni nee naa la léegi xaj na nga sol mbubum xasida yi wala sax nga tëj ko sumi ko léeg-léeg sol meneen mbub ma <laughs> waaye fi mu bëgg a rek mooy lan la sëriñ nam ci li nga xamanteni modi politique ak commune bu xombal ndax nak eh, fan yi wala sax weer yi ñu genn ñi ngi seetlu lu bari ki nga xamanteni modi moo di sëriñ di di fréquenter wala sax di participer lu ci bari ci li nga xamanteni ni activité yi nga xamanteni municipalité bu xombal ñu koy amal. waaw umpañ ma nga lay ziar bax di rafetlu tamit euh, question bobu nga xamanteni mm-hmm. laaj ñama ko ndax lu am solo la. Mm-hmm. Euh, sering nail moom développement ma ko ñor. Mm-hmm. depuis mu nekk xombal jiite ay tailleur. Mm-hmm. lépp luy développement man sama loxo day ne ci biir inshallah allah. Mm-hmm. ci cadre politique tamit euh, dama am fasiyene yéene nekk ci langue gi nga xamanteni lepp lo xamanteni deug la rek man dinaa ca ànd. ta tamit nit ki moom bu la yalla dimbalee nga nekk manam citoyen comme ni ko ñepp di waxee.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 Wow, wow, waaw <laughs> parrainage ci ndax euh, politique man ni ma ko gisee mooy mm-hmm. nga tàmbali ci sa gox sa gox bi nga mm-hmm. nekk mm-hmm. nga fexe maanaam lépp loo xamante ni maanaam askan wi soxla nan ko tey bu la ko yàlla mu nga mën koo ay nit ñoo xamante dinañ ko def man ci politique boobu laa dox muy surtout ginnaaw raay gi nga xam ne dama fee nekk dama ci tàmbali lépp loo xamante ni activité la euh, boo xamante ni dañ koy soxla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 non du question choisir xam nga loolu lépp xombal la bu fekkoon activité bi dafa am euh, maanaam or xombal. man mhm. nga tay nga taxaw euh, laaj. ma bi boobaa mais mais xam nga xombal la mais xombal tamit am na ñoo ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi fi nekkoon opposition bi. Mhm. waaw ñu ngi fi nekkoon opposition bi mooy li ma la expliqué nii. Mhm. moment bi dañuy dox ci développement dañuy dox ci développement boo xamante ni lépp luy dugg xombal bu doon opposition bi moo ko indi sax ñun dañ cee participer ngir servir sunu sunu sunu sunu sunu sunu sunu sunu dëkk bi. tey jii am na forme bu fa tollee.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 Mm-hmm. wa fofu la waxe quoi mais. <laughs> kon dal fi ne mën nañu japp ni serigne tak na say wu deuguer taxaw taxaw dal di xol ba xam fan la ndariñam nek ak ndariñu sayam mu aw fa. waaw ndariñu xombal sax lay wax sama say mom xam ni <laughs> moy ndariñu xombal <laughs> waaw ndariñu xombal la ñuy wax ndax euh, comme li la expliqué rek. Mm-hmm. Euh, ci début wax bi dama ni man xombal moom ma ñor te lepp luy développer xombal. serigne mom mm-hmm. boko fa gëstu ko fa gis. activité bu mu di demee gis nga barki dem rek ñu ngi nuyu au passage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 maa ngi mm-hmm. lancé un appel na ñëpp delloo seen xel xam ni mm-hmm. xombal benn benn bopp la kenn mënu ko xar nan ànd ñun ñëpp ñu taxaw Antoine ngir intérêt xombol loolu mm-hmm. man tey jii dama ci lancé maanaam ci bépp bépp camp muy opposant ak képp koo xamante xombal moo la ñor Antoine fi mu nekk nekk na koo xamante ni tey jii buñ ko joxee loxo mën naa am suñ borom dimbali ñu xombal fi mu nekkoon ba 1925 bi mu juddoo ba léegi mën naa am suñu borom dimbali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 <laughs> foofu rek fi ñuy daal di bëgg ñëw ndax yaa ngi laal léegi koo mm-hmm. xam ne muy ministre de l'intérieur ñu ngi mm-hmm. koy nuyuwaale bu baax euh, muy mm-hmm. Antoine Diome ñu ngi koy nuyu di ko féliciter moom tamit ci taxawaayam ci dëkk bi euh, di féliciter nag municipalité bi nga xamante ni ñoom tamit tijji nañ seen i buntu yaatal ko ci doomu xombal yëpp euh, wane ni.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 yaa ngi koy togg mhm. mi ngi taxa ñu bëgg a xam ba xam sëriñ loolu lu mu doon li ngay togg ci suuf lan la waaw euh, aji euh, da danga da nga laal point boo xamante ni dafa am solo trop mhm. muy muy muy jamono jële xew-xew bi fi am mhm. ñu masawu képp koo xamante ni rek yàlla dogal na euh, yàqu-yàqu am ci ci yow wala mu am ci sa mbokk wala ku man di doon ñu ngi leen di masawu bu baax te xam ni àdduna mu nit ñaar da nga lay def léeg mu def dara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 Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ayca Serigne ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaye fi fi ñuy tënke rek mooy nag eh, eh, jafe-jafe yi nga xamante ni xañ ne ñàkkun ñi téer yi léeg-léeg ñu ngi koy dund ndax ñu ngi jot yenn message yoo xamante ni ñàkkul ni xañ na mi bàyyeekoo eh, ci sa mbokki téer yi wala wala sax sa njabootu téer yi la ñuy wax ñoom ñu ni jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund est-ce que mën nanoo jàpp ni mi ngi taxaw ci ñi nga xamante ni ñoo fi nekkal nguur gi eh, eh, muy municipalité bu xombal ndax ndax ndax am nga ci taxawaay boo xamante ni ñoom ba ba ba ndimbal wala sax yenn yi ci jafe-jafe yi ñu mën cee taxaw ñi nga xamante ni ñi ngi nekk ay tailleur nekk ci dëkk bi eh, tëgg jiitale. waaw loolu loolu maa ngi ciy waxtaan bu baax a baax ak municipal bi. Mm-hmm. Euh, te léeg-léeg sax li ëpp dama ci waxtaan ak sëñ Mbacke mm-hmm. ndax tailleur yi toog nañ foo xamante ni xombal. ku leen fi ëpp doole gisuma ko. Mm-hmm. bu dee ci marché bi nga xamante ni ci la li ëpp ci maanaam ci wàllu maanaam koom ci xombal ci lay jugee ak garage bi tailleur yi buñ ci buñ ci croiser maanaam mm-hmm. dara du fa dara du fa mm-hmm. kon léegi sunu jafe maanaam dafay dafay ñëwaat ci tailleur yi fu nekk. foo xamante ni tey jii seen i place bopp la ñuy yor. tey loolu dama koy chaque moment maa ngi waxtaan ak sëriñ muy xool stratégie parce que am na loo xamante Euh, faw mu am ay partenaires pour ñu man ko defar ndax saa su ma ko waxee loolu mi ngi ci yoon wi ba am na ñu ci doon waxal pour fexe nun mën a soutenir tailleur ba am mm-hmm. place yoo xam ne dañ koy defar uniquement pour tailleur yi donc maa ngi mm-hmm. dem sax bay ni ko pourquoi pas mm-hmm. centre commercial mu am pour tailleur yi spécial rek mu ni ma loolu incha allah dina am mais ñaanal yàlla suñu borom partenaires soxla rek ñu am ko ba loolu day am maanaam maanaam fierté pour xombal gépp te loolu man maa ngi ciy dox chaque jour maa ngi ciy waxtaan ak ñoom pour téyeer yi seen jafe-jafe seen maanaam seen première jafe-jafe daal mooy palace yu nekk. palace yu nekk mhm. parce que place yi seer na. un place yi nga xam ne dañ koy nekk dañ koy suulee te léeg-léeg place nga koy dugg fekk fa ñetti ñetti patron yoo xamante ñooy bokk place yi. kon ndaw na yoo xamante ni. waa ci mhm. benn place bi. mais xam na seen deuxième tranche bi ñuy ndax maa ngi seen di wax rek sama sama sa mbokk téer yi ndax nag eh, ñàkkul ne xam na ñu ngi bëgg a participer mais mais di xam di xam leen di rek eh, eh, ku ci bëgg a participer ci émission bi nga jaar 77 043 25 76 ndax nag Serigne temps temps bi sax daanaka li ki des bariwul. mais ñoom ñi bari fi mu ne daanaka ñi ngi dugg si mais message vocal yi duñ ko mën a lire na ni jaar ci li nga xamante ni moo di commentaire yi wala sax ñu noté ci numéro bi eh, di 77 043 25 76 bu ko defee eh, ñu mën a dugg mën a participer ci waxtaan bi sëriñ yaa ngi nekkoon ci li nga xamante ni moo di place yo xat waaye balay boobu mm. ñu nuyu ki nga xamante ni moo di poté ah poté officiel ñu ngi lay sargal bu wér ñu ngi lay sargal di kontaan ci yow ah del di la mm. félicité waat ñu ngi seen tamit ki nga xamante ni moo di Mor Afia moom di sa mbokkum tailleur Serigne eh, ñu ngi koy sargal bu baax a baax borom Afia Couture ñu ngi koy sargal xam nga nee naa la moom di ñàkk tamit dina ñëw ñu jàkkaarloo ak moom ay ca rek Serigne nga daal di yeggale ci li nga xamante ni moo di place yi nga xam ne eh, eh, ñenn ci patron tailleur yi ñu ngi koy bokk ndax ñaxataay wala ñàkk place waaw lo lo lo man municipal bi laa ci expliqué doon waxtaan ak moom ci yu mel noonu parce que tamit man bu ma falee du may tëdd rek di toog di xoole faaw ñu toog waxtaan ci téere lan mooy seen jàngoro lan lan bëgg man ma hmm. fexe ñi nga xamante ni seen loxo mën naa faa jotee ma dem waxtaan ci ak ñoom ba yàlla mi ngi may sutural ñuy ci commencé ami buntu ngir ñoom municipal bi nga xam moo fi nekk ñoom ñu ngi waxtaan nan lan mën a def pour seen deuxième trans bi nga xamante ni moom la ñuy war a euh, defar ñu defar ko gaaw pour téyër bépp bépp téyër boo xamante ni yaa ngi yóbbu so nga man caa mm. nekk dugg ca don la mm. souloué loolu moom mm. fi mu nekk ñu ngi ciy dox avancé avancé bu baax di ko gërëmee monsieur le maire Pambouk di ñaanal yàlla suñu borom wéral ko ndax yooyu yëpp mm-hmm. ci xombal la ta xombal moom moo ko ñor vraiment te loolu tamit dama koy ñaanal bu baax a baax municipal bi am kantum yi maanaam téer ñaata lañ koy amee wala wala sax est-ce que est-ce que nin ko war a amee ci dëkk bi amee nañ ko doon ndax nag booy xool daanaka ñoom euh, diggante bi tayër yi ne mooy boo ma ne xaw na xat marché bi ku ko miin loolu di di ca dem euh, boo natee ñoom fa nu féete euh, xaw xaw na xat moo tax ma ne mhm. moo tax ma ne que li nu war a am ci li nga xamante ni moo di ay place am nañ ko ak tamit njëg gi nga xamante ni dinañ leen ko joxe place yi ba nu mën ko jël te duñ ci am jafe ndax nag ku ne xam na ni ñaw dafa ak moment boo xamanteni ci lay dox ak moment boo xam ne du dox. Mhm. waaw lool lool lool loolu mooy dowaar ndax tey yi place yi ni ñu koy amee dafa miti ndax mhm. place mënu ñuy fay euh, municipal bi léeg-léeg am na place yoo xamante ni 4000 ngay fay municipal bi. Mhm. am na place yoo xamante ni tey jii euh, buñ la ko fayee maanaam 4000 yi ngay fayee municipal bi ki koy suulee ma nga tëdd këram. maa ngi jégalu nag ci ni ma koy waxee sax ni ki koy suulee mi ngi tëdd këram mais tëdd këram googu dina ci am 15000 te du bok ak quatre mille yi nga xam mom ngay jël di ko fay xanaa municipal daa def am keneen ku koy jël ñoo ñoo soulié ko ñi nga xamanteni ñoo di téré yi mënu ñu am direct place municipalité bi mi ngi noonu mi ngi noonu non manam ci am sax directement mais tay ji bu fekkee dafa am bi ñuy toj place yi dafa am ñoo xam dañu dañoo yor seen place doon ci liggéey xamna naa jamono jàppale ñu dem ba benn moment ñu bëgg a louer seen place dem xol leneen benen lu ñuy def leneen lu ñuy def comme man exemple sama place ki fa nekkon mom moko nekkon depuis avant ñu tej marché bi bi yàlla hmm. dogalee ñu defaraat marché bi bay bay joxe place moom mi nga xamante ne place am dañ ko tax yëkkati place jox ko. Hmm. léegi foofu bi demee léegi ba jamono xaw a doy waar moom daa jël place am luye ko. Hmm. dem saa su fin mois jotee ñu fay maire moom mu daal di jël place am la nga xamante moom la ci am jël def ci def ci def ci fa mu war a def noonu noonu noonu la demee quoi mais euh, du bu doon loo xamante ni man sama sama ni ma nekkee président des tailleurs. ñu doon joxe influence mm. man gëm naa ni man maire maire bi dinaa fexe wu ñaa seen loxo ba bépp koo xamante ni patron nga nekk ci place di nga am place incha allah te loolu man maa nga ci combat boobu pour ñu soutenir ma ci loolu bu fekkee ab centre commercial la sax ñu defaral ñu ko uniquement pour téeri ak ñi nga xam ñoo jaay tissu ak ñi nga xamante ni mercerie lañ yor loolu moom maa ngi ciy waxtaan ak ñi nga xamante ñoom laa ci war a waxtaan ñu ngi lijjant ay partenaire bu ñu ko amee rek suñu borom dina sottal loolu incha allah ayca sëriñ ñu ngi lay jaajëfal bu baax <laughs> xam nga nag dafa mel ni li amoon tey eh, ci li nga xamante ni moo di eh, toogaay bi ci waxtu li eh, li ci des bariwul wala sax mi ngi bëgg a jeex ñu ngi lay sargalaat bu baax a baax ci ànd gi nga ànd ak ñun ci li nga xamante ni moo di xombal point waaye ànd ak ñun ci sunu teraaga ñu ngi sargal ñëpp di wax mbokk yi rek ñu ñu ñu Ah, di participer ci live yi surtout ci commentaire yi ndax comme ni ma la ko waxee woon site bi seen site la yéen a ko moom seen alal ba tax na euh, bëggu bëggunu kenn di xaar buuxante leen tàncante leen yéen ñëpp daal di dem abonné ji ci page Khombole point euh, ci li nga xamante ni moo di YouTube waaye tamit ci Facebook ñu ngi sargal bu baax a baax euh, ki nga xamante ni moo di Mor Afia ah, kaddu gi ah, nee na rafet na ñu ngi koy sargal bu baax a baax moom tamit di kontaan ci moom ñu bàyyi la rek ak mbokk yi nga xamante ne àndoon nga ak ñoom eh, eh, jaarale ko ci internet di bàyyi la nga tàggatoo ak ñoom. waaw aji gannaaw ma la sante ci invitation bi. Mm-hmm. Euh, ñu ngi ñaanal maanaam xombal point net bi nga xamante ni tey jii yaa ngi ciy liggéey suñu mm-hmm. borom defal la ci lu ko sa njort ndax yaa ngi ciy liggéey liggéey bu am solo. Euh, nit ki moom bu fekkee yàlla dafa dogal nga nekk ci biir dëkk. Mm-hmm. mënoon nga croiser le bras rek ni du ma yëngatu ci dara mhm. waaye yàlla dafa la dimbali nga bëgg métier bi moo la mhm. permettre lii nga koy def nga koy def di mhm. bàyyi say nelaw di bàyyi sa njaboot di bàyyi lépp ngir sans su ne lépp loo xamante ni intérêt la bu jëm ci biir xombal wala mu jëm ci biir média ku la ci ku la ci gëstu rek dina ci fekk kon yàlla na ci yàlla may lu kawe sa njort allahumma amin noonu lay def waaw di gërëmaat bu baax a baax a baax sama njaboot gi nga xam ñoom la am muy sama famille di leen ñaanal yàlla suñu borom taxawu leen Mm-hmm. muy samay xalifa yi nga xam ñoo nekk biir xombol ak képp koo xamante ni yaa ngi yewoo biir xombol di xam mm-hmm. ni euh, Serigne Nel daal mi ngi nii mm-hmm. euh, xombal ko ñoom ci lépp loo xamante ni développement la ci ay xalaat ay idée ndax mën naa bañ am ko mais idée yi moom mi ngi fi ndax dem naa ba kenn xombal bu bees dem naa ba bëgg xalaat tamit maanaam mouvement boo xamante dama koy taxawal muy communal muy xombal propre manam hmm. yooyu yëpp mi sama samay xalaat ci projet yo xamne ne ngi koy tek inshallah di ñaan yalla la fañ ci chat ba lepp luñ ci bëgg rek yalla may ñu ci lu kawé sun ñort maa ngi gërëm bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax borom dëkk bi muy monsieur le maire Pambou diko ñaanal yalla suñu borom may ko wër ndax euh, li sëñ Abdou Karim di wax rek neena ab dëkk bo fa ñëw da ngay dem ci borom dëkk bi motax ñom hmm. ñum kil sangay sa su ci dëkk dañuy dem ci hmm. monsieur le maire ba nga xam mo fa nekk te jamono ji ñuy xombal fekk fi ababakar Ba mom la ñëw seese ganse ko kon ñun loolu lañu tamal di gërëm baax sama xarit boo xamante ni sama xaritu xol la mu sëñ Mbacke Anne maa ngi koy ñaanal yàlla suñu borom lafal ko cat. sama xarit la nemmeeku di waxtaan ak man di ma conseiller te yaakaar naa ne li muy wax ak man politique taxul mu wax ma ko. kon hmm. loolu dama koy ñaanal yàlla suñu doom taxawu ko ni ma taxawoo gis naa ko yàlla na ko yàlla jàppale ak mboolem politicien bu nekk xombal muy mouvement yëpp hmm. maa ngi ziar bu baax monsieur Honest booy hmm. mouvement l'appel de xombal di ziar bu baax min gey sama xarit maa koy ziar bu baaxa mhm. baaxa baaxa a baax baax di ziar mhm. képp koo xamante ni rek xombal ñor na la sëriñ mi ngi lay jox loxo di la ñaanal yàlla suñu borom dafa la jàmm taxaw leen mhm. ah, di ñaan yàlla li nga moom taxawal yàlla lay jëm ca kanama kanama kanam di ziar baax sama xarit bopp nag Afia borom baax la te nit nit ku doy war la Afia nit ku doy war la xalaatam rafet na <laughs> idéem rafet na saa su mi ngi wax ci mom lo xamanteni lu rafet la serigne defal nangam defal nangam kon man munuma ko fay yalla nako ko taxaw te yow tamit yalla guddal sa fan te xamna dal nan ko togga dal man ak yow inshallah <laughs> ndax li neex na ma trop ay te serigne ngi lay remercier bu bu baax bu wér yow tamit ci and eh, gi nga and ak ñun xam nga bi moy deuxième numéro ci li nga xamanteni modi point net ci live bi nga xamanteni yaang ci and ak soxna Adja ah, ñu duppee ko sunu teranga ah bii moo nekk deuxième numéro bi ñu ngi lay sargal bu baax a baax di sargal tamit Cheikh fay bi nga xamante ni moo nekk euh, TFM moom tamit di doom xobal di jàmbaar di jàmbaar moom mm-hmm. tamit bëgg dëkk bi loolu dam nga fay investir ah, euh, lépp mm-hmm. loo xamante ni woo nga ko mu mën ci dara euh, ci dëkk bi ci mbirum internet ak li nga xamante ni mooy liggéeyam foofa ca TFM tarkal la dala ci daal di jàppale soutenir la ci ñi ngi koy remercier bu baax a baax di nuyu xujja ah, jeeg bu baax boobu madame fay ay maam Diarra ñi kaa bu baax di ko sargal di kontaan ci moom mm-hmm. ah, euh, ñu ngi sargal bu baax a baax tamit pote ñu ngi ko gisaat ci suuf eh, mi ngi lay ziar seex bu wër moom tamit ñu ngi koy nuyuwaat bu baax eh, di kontaan ci moom Serigne di la sargalaat bu wér a wér ci ànd gi nga àndoon tey ak ñun ci sunu teraanga ñu ngi sargal ñëpp waaye remercier nag bu baax a baax ah, eh, téer bi nga xamante ni ah, tarkal moo jaar fii ah muy boo boo njaay foog naa noonu lañ koy wax boo njaay tey nee moo jaar ci rob bu yanj bi Ami Diop madame Dieng moom moo joxe tissu bi ah tarkal mm. ba tax nañu koy sargal bu baax a baax moom tamit di kontaan ci moom remercier xombal yëpp di wax nag xombal yëpp ah waaye di ko wax Sénégal di ko wax région de Thiès yëpp ak département bi ñi pare nañ ci jibuntu yi eh, eh, ànd ak ñoom liggéey ci li nga xamante ni moo di sud képp koo xamante ni bëgg nga ñu ànd ak yow ca wàllu ba ngay liggéey fekk si la fa ànd ak yow liggéey pare nañ eh, ci jibuntu yi du yàgg dara di leen joxe numéro yi nga xamante ni ci la nu mën a jot ba mën a ànd ak ñun liggéey ndax nee naa la liggéey rek moo nu tax a jóg te fii nu nekk féete fii fi la yàlla dogal ñu féete fii te nee la fi la ne ànd ak dëkk bi ànd ànd ak euh, jeunesse bi ànd ak ñi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk bi te bëgg dëkk bi jëm ci kanam ànd ak ñoom ñi ngi ñi ngi sargalaat ñëpp di jaajëfalaat ñëpp soxna Adja woon sunu teraanga ak ci li nga xamante ni moo di xombal point net ñu di jaajëfal di leen joxandi rendez-vous incha allah rabi dimanche à 22h leen fi teewaat ak beneen invité ci sunu teraanga ci la ngeen